te nag ñu ngi fii ci njaareem ngir fàttaliku jëmu tedd bu sell nga ji Serigne Touba Khadim Rasoul ginnaaw bi nga xamante ne wàcc nañ liggéey fii ci kër gu te Cheikh Modou Moustapha Mbacke jële ko fii yóbbu ko Touba tey jii nag njaboot gépp maas àndoo ci njiitu Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacke yàlla na yàgg te wér ak ki nga xamante ne moo jiite conseil supérieur bu Darou Khoudoss Serigne Cheikh Aliou Mbacke ak mbooleem ñu koy jàppale ci wàllu liggéey bi lépp ñu fas yéene àndoo ñëw fii fii njaareem ngir fàttaliku bis bi nga xamante ne te jii kër ñu ngi ko amal di waaje waajtaayu màggal gi nga xamante moom màggal Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci Daaru Xudoos ak yëpp ñu fas yéene ko àndandoo sëriñ Ahmadou Mokhtar bi mu egsee ba dal ci la sëriñ Muntaxa jokkoo fas yéene ñëw fekk fii ci barab bi ci kër gi es yi ñoom ñaar ñu safonte ziarante euh, wane mbégteem ak bis bi nga xamante ñi ko amal fii njëreem ngir lépp di ay ñaan jëmal ko ci sang bu tedd ba Sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul ginnaaw bi Sëriñ Muntaxa delloo ci dal ba nag xam ngeen ni ci la conseil jóg ànd Sëriñ Fàllu Mbàkke ñu àndoo ñoom ñëpp maas bi nga xamante ne amal nañ ko exposition bii nag dañ ko amal tey duppee ko Cheikh Mouhamadou Basir ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ñoom ñaar xam ngeen ne liggéey bi nga xam ne ñu ko liggéey ñoo ko àndoon euh, sëñ sëñ Muslim Mouhamadou Moustapha euh, yàgg nañoo dégg ñaan Moustapha Maguette Bass te loolu li ko war a mooy ak taxoo ak dendandoo ak waxtu wu ci nekk ñu bokk ci xalaat yi nasandoo tey jii nag loolu moo sabab ñu nekk fii ci njaareem amal exposition bu am solo jëmee ko ci jëmu ji tedd jooju ak mboole ñi nga xamante ne ñooy kilifa diine yi muy lu rafet loo xamante ne yëpp dégg nañ ci muy bis bu am solo bis boo xamante ne di ko tax a jóg rek mooy waajal bis bi di ñëw di ñaar fukki fan ak benn ci weer wi di ajuma ngir fàttaliku wàccu liggéeyu Seexul Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul te Seex Ahmadu Mustafaa jëlee ko njaareem andi ko fi fi Tuubaa tey mbooloo mépp di maase waajal bis boobu ci wàllu set ci wàllu jàng wàllu ñaan ngir fas yéene xam ne bis boobu nag Sëñ Tuubaa yàgg naa wax ne yàlla na ko suñu bon muy bis bi gën ci ay bisam tey ñu fas yéene àndandoo ak mboolem mi ci ginnaaw conseil supérieur bu Darou Khoudoss Serigne eh, ci wàllu organisation bi tamit xam ngeen ne lépp lu ñu fi organisation diwaan bi ñoo ko yore ñu àndandoo muy liggéey bu rafet liggéey bu am solo ànd ko mbooleem njaboot gi mbooleem cheikh bi mbooleem talibé yi ñoom ñëpp maasandoo takkandoo àndoo topp ci ginnaaw Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké ngir fas yéene fàttaliku eh, bis bi nga xamante ne ca si Amadou Moustapha jële woon sang bu tedd ba Serigne ko fii fi Touba bi ñu demee nag ba tëkkusaan nag ci conseil bi nga xamante ne moo jiite liggéey bi sëriñ Cheikh Aliou Mbacke ànd ak Serigne Abdourahmane Mbacke Gaynde Fatma ak Serigne Cheikh Baara moom Serigne Cheikh Makhtar Mbacke ñu ñëw nag ci base bi euh, door waxtaan yi nga xamante ne incha allah dañ ci déglu Serigne Abo euh, Kebe mi nga xamante ne wax na lu am solo ci Cheikh Amadou Moustapha xam ne mooy ubbi jotaay bi niko oustaz waxe won bëggoon nañ mu yaatu lol waye jamono ji motax serigne sëriñ kebe ñu gën ko xam ci serigne Abou kebe tok ni ci sama chamoy di mourid sharif bu ñepp xam mu yëngu ci xamle ak xam di yëngu ci xam-xam di yëngu ci jota yu mel ni ci barab yu bari ci rew mi ak bitim rew ci kër sëriñ bu mbakke yaroo it ci suufu kër sëriñ bu ak kër sëriñ bu Mbacké yaroo fa jànge fa ba xam lépp foofu la ko xamee donc bi mu amee xam-xam bi nga xamee ni suñu borom dénk na ko ko sax na foofee ci kër sëriñ Chouaïbou lu ëpp fukki at di jàngale di taalifkat boo xam ni ñu bari xam nañ ko di génn lu bari ci wàllu Europe yi ngir njàngaleem sëñ Touba akub liggéeyam yaatal ko ci mbooleem murit yi ak ci mbooleem taalibe yi moom lañu tànn ci jataay bi ngir ñu defal ñu am nubza rek ci taxawaayu Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim mi nga xamee ni moo jële woon Serigne tubaa ci këram gi yóbbu ko ca këram gee ñun ñëpp ñu maase teewlu ko Serigne Souhaïbou danañu tënkal lenn ci taxawaayu Cheikh Mouhamadou Moustapha ginnaaw Cheikhul Khadim danañu fàttiwa fàttaliwaale. waxtaan ci Cheikh Moustapha mooy wax ci lan mooy ak murit ndax moo résumé yoonu murit yoonu murit weesuwut nga doonub taalibe baa nga doonub sëriñ ñaar yooyu nag foo ca nattu Cheikh Moustapha fekk ko muy kacaman fu ma te sëkk boo xoolee dimension murid sadiq ci Cheikh Moustapha da koy mat sëkk nga xool ab sëriñ ak kilifa nan la war a yilifee am mbooloom nan leen war a fan la leen war a jaaree yan jikko yan qualité la war làmboo pour man mën na wommat njabootam foo ci xool Cheikh Moustapha da ciy mat sëkk kon dafa mel ne waxtaane ko mooy waxtaane yoonu murit kon Cheikh Moustapha murit saadiq murit saadiq sëriñ Tuuba moo ñu ko waxoon dañ lay jaarale fañ la war a jaarale ci xam-xam ci yar ci waajal la def ci yow iraada sadiqa muy ak taalibe gu wér loolu pëstéef am himma loolu ku ko xool ci Seex Moustapha dañ cay fet mu mat ca sëkk ndax mooy kii mooy ñii yoonu murit njëkk a bu doon yoonu murit ab école la ki mu njëkk a produire génération bi ci jiitu sëñ Tuubaa defar leen jaarale ko ci sëñ Daam Abdourahman ak Seex Maam Cerno ñooñu mooy génération sëñ Moodu Moustapha kon mooy kii yoonu mu di ndamoo ndax mooy ki mu njëkk a defar génération bi mu njëkk a defar ci xam-xam ci alquran ci xam-xam waaye tamit ci yar ak defar ay jikko kon ñi ñu gën a yaakaar ñi ñu gën a naw ñoo ko defar gannaaw waajuram ba seex dam abdourahman mam tierno Niko ko fallou fallu baaxoo waxe rek ne Mak sama Mak, seigne mustafa seigne moodu sunu baay tierno daño yar bañu ne ner ar jangal ñu bañ ne ar yee ñu bañ ne jar te yakarna ne loolu moy bazu tarbiya yonu murid jar jàng ak yee waaye yëmu ci doy na sëkk doyoon na ko ndam ci moom mu doon doomi sëñ Tuubaa waaye niñ ko baaxoo waxee daana wax ne doon doomi sëñ Tuubaa am na solo lool wuutu ko rëy na lool waaye man ak njub moo ma ñor njub googee nag ca lañ ko toqi fa mag ña jaar ci tarbiyawu ci wut yàlla ba àgg ci maqaama yi gën a kawe foofa lañ ko jaarale mu teel a dund ay jafe-jafe teel ñeme coono teel a doon am murit saadix dara yittewu ko dara ñoru ko lu dul yàlla ak yonent bi Sëriñ Tuubaa bi sëriñ bi jugee ci géej gi ci tikub géej gi ñëw fekk alliwaam noppi xam-xamam sori sëriñ bi bëgg koo jaarale fay gaayu yàlla yi di jaar motax mu wolu ko mu fekk ci ko ca Mauritanie tagana kon manes na li ëpp ci tarbiya ruhiyam tarbiyam fofé la ko defee muy barab bu metti won barab bu bari woni jafé jafe nga xamé ne goor yalla deug deug mo fa mëna dund ndax ku ne xamné né ñi daan siyar ci sëriñ bi rek di dem xomaag dem ca gànnaar lañu daan jànkoonteel rekk dafa doyoon sëkk waxuma laa nag nga dëkk fa di jànkoonteeg la fa nekk ci ay metti bu ñu pour nga xam mettit yooyu sëriñ Bachiru nettali na ci minanul baaxil qadim ne Euh, sëriñ bi bi ñuy nekk ci gànnaar mais maa ngi fàttaliku bis boo xamee ne ñi ngi nekkoon ci gànnaar ci benn siyaam gu tudd Babacar boobu sëñ bi moo fi nekk sëñ mag bi nee na jamono jooju mi ngi tàng tàng woo xamee ne e, ndox amu fa àll bu lëndëm këriis amuti garab amul ndox amut lu nit di lekk nee nga ñu ngi wàcc woon ci genn garab goo xamee ne ànd ak sëriñ bi te boobu ñoom ñëpp ñoo fa nekkoon di tarbiyewu garab ga sax nee na amut ker sëñ bi bu ñu bëggee mu amuk ker sax dañuy jël li ñu sol def ko taqalante ko pour sëñ bi mën a toog ci suuf ba mën a am ker gum gum toog nee na bu boole ci barab yoo xamee ne lépp ay dég la jant bu tàng boo xamee ne ashiatu shamsil multahiba nga noonu la nee na bu sëñ bi bëggoon sax lu jàppee duñ mën a am fu mu amee ndox waxuma ñun nee na bala ñoo am luñ naan dañuy wutal sëñ bi lum jàppee ba noppi ca la ca des ñu jéem caa naan nee maa ngi fàttaliku bis euh, sëriñ bi ñu wutal ko ndox mënuñu koo am dañoo dem ba di wër di wër ba àgg ci genn siyaan benn lu mel ne teen bu yàqu ñu dugg fa yoor kenn mu dugg xool nee na ndox ma sax niis na ba daanaka luñ mën a tànq sax amu fa ca nee na loola lañ tànq muy lu taq ñu ñëw jox ko sëñ bi sëñ bi ci la jàpp la ja des ca lañ barkeeloo naan ca kon li muy doon doom yi sëñ Tuubaa li muy amub cër lépp téewut lii la àndoon di dund ak baayam foofee ca gànnaar kon li mu am da ñaq ñàq loo xame ndax nee nañ wax na ko nee na lu lu ñuy liggéeyale Sëriñ Tuubaa kenn kenn kenn mënuma ca kenn mënuma ca néeg daan takk kenn mënuma ca addiye ya kenn mënuma ca kaamil ya fu waay lu lu ab taalibe di def rek fexewoon naa ba kenn mënuma ca boo ca nag doon doomi Sëñ Tuubaa ndax bu ñuy xool fii rek gis nañ ci ab leetar bu mu bindoon Sëriñ Tuubaa ne ko joxoon ko addiye ju rëy waaye li gën a yéeme ci leetar bi mooy teggin yi teggin yi muy wax ni muy wax ak Sëriñ Tuubaa moom moo ñuy wan dëgg dëgg dimension Sëriñ Moodu Moustapha akuk taalibe ndax ba ci addiye ji sax du ko tudd da koy ishaara rek nee na ko hadihi risalatun mu ne bismillahi arrahmani arrahim tubtu ilayka tawbata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala durran wala nafan وقد جعلت في يد حامل يد الحامل ما في سورة القدر حامدا وشاكرا wa arju wala arju siwaaka fi dunya wal axira wala takini ila ahadi mu ne maa ngi li mu jiital ci ci leetar bi mooy tuub laataa mooy wax addiye ji sax ak tuubam la jiital mais maa ngi lay tuubal tuubu jaam bu bu tooñ jaam boo xamee ne mënul ci boppam mënta lor boppam mënta jëriñ boppam waaye lii firndeel sama tuub mooy jël naa boole naag ndaw loolu lu tolloog sóoratul xadre la ca sóoratul xadre mooy kon teggin yi gis na ca sóoratul xadre yi mooy alfun min min euh, xayru min waaye maa ngi ñaan nga yoral ma sa bopp sama lépp jébbal naa la ko te buma bayé dara sama bop yaakaaruma kudul yow aduna ak alaxira serigne bi tontu ko neko al hadiyatu tujzibul murida ila saada wa uluwu maqamat wa al mal wa al umr wa mahabbati nas ilayhi wax ko yu baree bari ca leetar boobee ne ko dey addiye ji ñëw na dey waaye sa xol war naa sedd ndax lii nga def dey mooy tax ku ko def yàlla may la mooy may am murit kon sëñ Tuubaa ab muritam la ko jàppe woon waxu ko doom ak baay waaye tuj zibal murida kon en tant que murit la ko bindee sëñ bi tontu ko en sëriñ ci taalibeem ne mooy may murit bi texe moo koy may maqaama yu kawe yi mooy yokk wërsëgam moo koy may gudd fan mooy tax nit ñi bëgg ko mooy tax ba ay sut ay kemem mooy tax ba doo gis ñaari malaaka yi ci sa bàmmeel mooy tax nga gaaw a jéggi siraat mooy tax nga mucc ci mbëgulum bàmmeel mooy tax euh, sax yi du lekk sa yaram agit nag yeneen yu bare yoo xam ne kenn wuru koo tudd ci làmmiñ waaye des koy junj kon kooku mooy Cheikh Moustapha kon sëriñ Touba moo ko euh, wéeralal moo ko seedeel ak taalubeem loolu nag doy na sëgg ah Cheikh Moustapha liñ mën a jànge ci moom it comme ab njiit loolu yaakaar naa ne seigne euh Moussa ka waxone ne hal fil wara man shakka anna al mustafa warisa al khadima wilayatan doomay di baay lam ja tek ne bahrul haqiqati wash shariati wan nada mawjun yamuj lil wara yay jenn way loolu moy qualité yi ak kilifa ما سكتي شريعة ما سكتي حقيقة واي وندا عمل نجري من دفي عمل نجري من دفي موج يموج للورى لولو موي كاليتي ييغا خاميني موي تخ كليفة مات كليفة واي سيام مصطفى lii wane tolluwaayam dëgg-dëgg mooy mat gi mu wane bi fi sëriñ bi jóge ndax dégg ngeen ko ci li historiens yi nettali ba tey xew-xew bi ba mu amee fa mu jaar ba egsi fii fexe na ba képp ku ko wër yéeg mu ku ko ku ko war a yëg yëg na ko ku ko wërta yëg yëgu ko loolu fa mat mën a yem euh, farlu gi mu def ba lépp li ko sëñ bi dénkoon ci bu fi jigéen na amee na noona mat googee ni mu ko taxawee wane na ko bu wér a wér waaye dëggi dëggi Seex Moustapha fi muy feeñee mooy li mu fu def gannaaw Sëriñ Tuubaa ndax ku ne xam ne ne yoonu murit lu derange woon tubaab yi la ndax mooy pakk bi teewoon tubaab bi li mu bëgg a not na yaram yi waaye mënta not xol yi ndax mooy benn force benn pas-pas bu ñëw taxaw ci kanamam di jindi nit ñi di leen xamal yàlla ba libérer seen xol libérer seen ruu kon dafa mel ne tubaab bi li mu bëggoon li ko ko tee mën a am mooy yoonu murit ak njàngaleem seen tubaab kon li ñu doon xalaat mooy doonte sëriñ bi moom jéemal nañ ko nu ne tëna leen nañ ko bàyyi mag la bu fi jugee rek ñu profité ci faagaaka ko yoon wi jeex waaye matuk seex mustafaa ak xikmaam ak mën boole ak sajaa ba mu yoroon moo tax fexey tubaab yooyee lañ bëggoon a raafal woote bi yàlla bi gannaaw sëriñ bi dara sutu ji kon loolu mooy matu sëñ mu Moussa dëgg. ginnaaw bi nga xamante ne nag ci toog saa nag bi ñu demee door waxtaan wi ci ab diir ci la ki nga xamante ne moo di Serigne Ahmadou Mokhtar ñëw ci baas bi euh, bi mu ñëwee tamit toog am na ab diir ñaanal waa baas bi doog a wàññi ko waa dellu euh, nes tuuti tamit Serigne soxna maam Fatou Mbacké ñëw ci baas bi toog ba waxtaan wi jeex muy lu am solo lool muy kàddu yoo xamante ne euh, jotaay bu am solo wax dëgg yàlla bu rafet lool boo xam ne ñëpp bëgg nañ ci te mu nekk nag woy fii ci dëkk sëriñ Moustapha mi nga xam ne Mamadou Moustapha mi nga xam ne moo tax yoon wi sowe njabootoom gi def bis bu mel nii ngir waajale ko jëmm ji nga xam ni ndigal la ko way juróom joxoon muy mu Khadim jëfe na ko bañ am ci la ci am tey muy Cheikh Mouhamadou Bassir mooy sëriñ bu Moustapha sëriñ Thierno Diakhaté léegi ni sëriñ Basiru dafa jóg jëm si ci sëriñ Modou Moustapha sëriñ Modou Moustapha yónnee gàttanu ko moom sëriñ Modou Moustapha néeg bi mu nekk mu nekk ci kaw lal bi mu demee ba ndaw li war dugg ci mu wàcc toog ci romb jàng bi mel na magu Modou ni ko ah waaw man de sëñ naa ndax ki ngay teg seet yaa ko mag dangaa war a toog ci kaw mu toog ci suuf mu ne ko loolu de am na aada de wa damaa war a toog ci kaw mu toog ci suuf loolu la ko aada may waaye nag moo defee loolu moom aada du ko may fekk ma ci kaw su ma toogee ci suuf moom bu njëkk dina ci maa toog te boobaa suñu waxtaan ci lay dàq ndax du ma yokkatu ak Serigne Modou Moustapha ku nekk xam na Serigne Bassirou diggante ak Serigne Touba. sëriñ Basiiru diggante ak dëkk bi sëriñ Basiiru diggante ak sëñ diggante ak njabootu sëñ Tuubaa bi ba ci diggante doomi sëriñ Tuubaa yi ak njabootu sëriñ Basiiru mu mel ni diggante boobu demoon na ci ba ci diggante sëriñ Cheikh mbakke mi njëkk wuutu sëriñ Mourou Moustapha seen diggante bi ci njëriñ kon sëriñ Ahmadou Moutar bu joxee ndigal sëriñ Cheikh ak sëriñ Abdourahman ak mboolem yi nga xam ni ñooy saytu liggéey bi ñu njëkkee ko yi dañoo delloo alal borom te kiñ ko delloo li li may wax waxtu bu nekk rek duñ doomi sëriñ Touba sëriñ Touba lañu dañoo doon sëriñ Touba kon diggante tànn ak mbég yàlla nag ci diggante boobu te mooy diggante sëriñ Modou Moustapha ak sëriñ Bassirou mi nga xam ni fi lañ dikk di ko waajale màggalu booy juróom gi nga xam ni lu mbur gi am tey ci boobu lañ ko amee kon sëriñ bi mi ngi leen sant ci loolu di leen ci gërëm di nuyu it taalibe yi nga xam ni waxtu wu sëriñ bi jógee lu muy def ñooma lu muy bëgg a def bu jógee ñu def ko ñooñu it dañ leen sant ci waajtaay bii nga xam ne suñ jàmbar dara ñu ko waaj di jël ci kàddu yooyu di ci nuyu ki nga xam ni moo fi teewal gouverneur gouverneur teewal fi ministère de l'intérieur ministère de l'intérieur premier ministre ba ci président Macky Sall moom préfet mii toog ñoo koy nuyu dafay bëntu nuyoo ci ki nga xam ne moo gën di ko xamal ni moom borom réew mi ki tax ñuy màggal sëriñ Touba ki ko yóbbu Touba ci ndigalal waajuram ba tax ñu am li am moom day tey bu nekkee ci bopp réew mi bokk na te ña ko jëmbat muy ko sëriñ Moustapha ndax xartu suñ jàmbar ji sëriñ Mbàkke sama loolu kii loo xam ne jaar daanaka ba am li am seen loolu kon màggal gi màggal ma noo koy sant li jiitu ak di ko sant teew ndax nun duñ bañ bañ féete waaye nag na xam ni màggal gi màggal na lépp lu ci mën a nekk murid nañ man ko def waaye moom kër gii day kër kon ngan nu sëñ banque yi di ko gërëm di ko sant di leen sant yéen mbooloo mépp di ñaan ñu tàmbalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ñaanal Seex Sidi Muxtaar ak mbooleem njabootu Sëriñ Tuubaa yàlla yàggal lañu te yàlla def ci réew mi jàmm ndax réew mi toll nañ foo xam ni ñun ñëpp a war a ñaan jàmm ci suufu Sëriñ Tuuba ndax yàpp sa morom toppandoo koy matu maas xamoo kuy sa kilifa wax lu la wóorul loolu lépp dafa xew te loolu nun ñi nga xam ne dañuy askanale Sëriñ Tuuba nun noo war a delloo suñu bopp xalaat suñu bopp Sëriñ tubaa def ko Sëriñ Tuuba kat sëñ Cheikh Aliou noo ngi lay sant di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo fi nekk waa wilaaya ak talibe yi nga xam ne ñoo saytu kër gi muy waa kër Cheikh Mamadou Bassirou ñoo leen di sant di leen ñaan di leen xam ni dal bi tuwaakala macha allah yal na yàlla def jàmm te defal nu ci diggante ñaar ñi nga xam ne ñoo ko seq asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu li nga xam ne ci laa waaye nag ba tey ci kaw laaj ndigal sëriñ Cheikh Aliou Mbacke mi nga xam ne moo jiite conseil bi ca conseil supérieur de Darou Khoudoss ñoo taxawul di saytu ko ndax lépp laaju ci kër gi ñoo koy saytu ñooy lëkkalee kër Cheikh Moussa doomi Cheikh Moustapha yi itam waaye kàddu yi day gàtt ndax euh, temps bi duñu ko may waaye rek ñu xam le ne bis bii dañ koo amal ngir waajale ko bis bee di xew ca Touba di màggal Serigne Touba gañuy defee Daaru Xuduus Serigne Touba di bis bi nga xam ne ci la waxoon la sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne yàlla defal bis bi gën ci samay bis muy bis bi may daje ak yàlla nangu ko Euh, Cheikh Moustapha jot ci ndigal taxawal ko ànd koog mbokk yi ànd koog taalibe yi ànd koog jullit yépp di ko defe ca Touba di bis li tax nag ñu koy waajale fii ci Njaareem dañoo xam ne fii ci Njaareem de Serigne Touba nekkoon 1912 ba 1927 ba suñu borom jële ko fi mu dellu ca moom ci kees gi ñu nekk ñu nekkoon nañ ko waajale fii tudde ko ba Bachirou Mbacke mi nga xam ne moom la Cheikh Moustapha yabaloon mu yóbbu ko Touba ba dikkaat ca xat dëmul ñuy ñaar ñoo xam ne dañoo doon lenn ndax li leen boole dafa bari Serigne Touba daf leen a boole kokki boole leen jikko yu rafet boole leen bëggante ngir yàlla boole leen ñu ànd ngir yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ak bokk Cheikh Moustapha Al Karim yabaloon ko nag des fii ci kër gi moom assumé ay responsabilités am ndax ki mu yóbbulu dafa nekkoon ci résidence surveillée mu toog xaar tubaab yi nga xam ne ñoo ko fi téye woon ñëw mu wax ak ñoom bi ko Cheikh ma Bachir yóbboo ba ñëw nag ñépp ne jeex na kon daal jeex na Sëriñ Tuubaa dem na Tuubaa jeex na yoonu murid jeex na am benn boroom xam-xam bu ne déet ginnaaw ba nag ba mu xoolee Cheikh Moustapha doxinam xool Sëriñ Tuubaa doxee na muy wenn doxin mu jël xelimaam daf ne daat ne من قال قد ذهب الخديم دفينا فقد افترى اسما عليه مبينا كوني سيرين توبا دامد توبل داف nga بكار بوري سيرين توبا ديمول ني نكو انامو من هذا ابنه الهادي محمد مصطفى ورث الخلافة والمكارم فينا من دوم جوجو جي nga xamne moy gindi ni reer moy gindi jaamu yalla jaamu yalla yi de محمد مصطفى mi ngi ju sin bir ta mom tek mo donu khilafa ak serigne donn sirab sirub xilaafa ga waaye donn makaarimal axlaq ya nga xam ne Sëriñ ma man ko donne woon ca sallallahu alayhi wa sallam kon bis boobu la ñuy waajal di ñaan ñépp eh, teew ci ndax bari na lu ci Cheikh Moustapha al Karim waxoon borom xam-xam yi di ko wax ba wax nañ ne sax képp ku ci mënta dem yoon wu eh, yoon woo jël rek mu jëm Tuubaa doxal ba fa nga mën a yem bu la fa bët seetee malaaka yërmande yi danañ la gàttandu te am nga yoonu màggal tey des na la jéggal say bàkkaar da mel ne kuy soog a ñëw ci àdduna kon ñuy ñaan ñu egg ceeg jàmm te lépp lu ci waay def suñu borom fay la ko te am nañ ci yaakaar ndax yàlla moo waxoon ne inna allah la yudiu ajral muhsinin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ah nuyoo googi tàmbalee ci ki nekk ci bopp njaboot gi te nekkoon ak ñun léegi ba wàcc ba ci ñi nga xam ne ñëpp ñoo nekk ak njabootam waaye law ba ci njabootu Serigne Touba gi yëpp kenn ku nekk nga xam ni monsieur le président de la république ak ñu ma fi lim ñëpp ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay ah di leen ni euh, li sëñ bi wax sànkit ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax c'est monsieur le président de la république ngeen am xel mu dal ni kenn du ko jiitu ci bésu Mouhamadou Moustapha Mbacké loolu moom amul dara luñ ci naatalle màggal googu ak màggalam la te incha allah buñ ci àggee di ngeen xam ni yëfi boppam la beneen bi mooy ab ziyaara ci bés bi nga xam ni dangeen ko waajale màggalu Daaru Xudoos ko nga xam ni kat ah ñun de waa Njaaréem am nañu mbégte lool ci bés bii nga xam ne indil ngeen ñu ko ndax dañuy faral wax ñaan autorité ci biir njaareem chance la na fekk ni nag chance boobu na nga ko xam ba li tax mu doon chance nga mën caa tegu ba la nga am ak lépp lu la fi indi suñu borom dimbali la ci waaye Sëriñ Tuubaa jàppale la ba nga mottali ko ndax boo jugee nekkee njaareen ba jóge fi te liggéeyaloo sëñ bi dara it yaakaar naa ni chance ba doon wax ab pertement lay doon ci yow lool it ñun ñii ay autorité ah ñu teg ñu fii ci njaareen xam nañ ko bu baax moo tax lii nga xam ne indi nañ ko mu doon lu njëkk ci waajal màggal bi kon ñun waa njaareem ah am nañ ci mbégte bu baax te doon lu ñuy ndamoo ndax ku sañoon sa aykat lépp loo xam ne lu njëkk la te di lu baax mu doon si sab ay ah ñun nag mu tombeel si nga xam ne ñu nekk fii kon bis bii dañuy jàpp ni suñu bés la ah ñu ngeen ko baaxe muy bésu ñaan bisu fàttaliku waaye bisu dox mbokk ndax lii ak dox mbokk ak fàttaliku ak mbokk ak rafetal rek moom moo ko tax a jóg kon ñun ñëpp ñu santaat suñu borom bu baax a baax rawatina ñun waa Njaaréem ah di santaat waa kër Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké ak waa kër Mouhamadou Bachir Mbacké ci bis bi nga xam baax a ngeen ko ñun waa Njaaréem suñu borom tabaraka wa taala noo ngi julli ci yonent bi Muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sant suñu yaakaar tey ëllëg di xaadimal Moustapha Cheikh Amadou Bamba di ñaan suñu Sidi Moxtaar suñu borom yàggal ko fi ba naal bi mu naalal Serigne Touba bu eggale ko eggale waal yi naal yi ko jiitu woon boole ci naali boppam ñu ànd ko ak moom te lépp dëppoo ak ngërëmal Serigne Touba ndax mooy Serigne Touba di rafetlu jataay tay bii nga xam ne li muy wundu bari na lool moo di kenn ku ne xamna symbole bi ni representer ci dunduk khadim rasul ak colonialiste symbole bi ni representer ci taxawayu l'islam bi khadim al mustafa taxaw ci réew mi te andon ko ak borom turuxu sufi fi dawon ci waxtu wowo taxawaayu résistance bi mu taxawoon ngirum réewam symbol la ci njaarim symbol la ci ndax xeexul xadim am na fi fukki at ak juróom ginnaaw bi mu jógee ci séjour carcéral am bi ci Gabon muy exil bi xalbatul bahriya bi mu def ci Gabon mu dem Mauritanie ñu tenté assimiler ko assimilation waaw ngir mu bañ a nekkati ndax defe nañ ne ñoom ñi ñuy assimilé moo ñi ñuy jël jàngal leen seen jikko ñoom tubaab yi def ci seen jikko ba liñ doon fay administrateur ba dañ fay indi koo xam ne dañ ko yor jox ko seen jikko ba dootuñu ko fay te dañ leen defal lu gën ci ñoom la administrateur bi daan def ñu yaakaar ne comme mi ngi bind arab buñ ko yóbboo foofu dañu ko mën a assimilé ba du nekk nekkati lim nekkoon fekk xamuñu ne wax nañu booba الضر والنفع من الرحمن ليس من البدان والسودان njëriñ ak lor du jóge ci ku ñuul wala ku weex xel du suñu borom moo ko jox doomu aadama ñun ñëpp ay doomu aadama lañu kon ndoor wala njariñ ma ngay jóge ci tabaraka wa kon foofu la njaareem taxawee ci béréb boobu ci diggante dundu Xaadimu Mustafaa ak ci résistance pacifique bi mu def face aux autorités coloniales euh, mu bàyyi fi doomam jooju ginnaaw ba mu liggéeyalee Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nekk mu jaddi soppi lu bari ci Sénégal mu demoon ba nga xam ne danoo tolluwaatoon ci li ñuy wax antul jaahiliya nga xam ne lu jiitu yonent bi